ne ko lii nañ ma ko saytu wala mu laaj ko waa IAF mooy corps de contrôle bi nekk ci biir inspection technique inspection technique bi nekk ci ministère bi seetlu ma marché bi kon dañuy setal rek ne bu fekkonte ne doxalinam bii muy transparence doxalinam bii mooy yaxanal euh, les ressources publiques bu ko doon wane kon si ñun ñi nga xam ne moo ñu yëli foofu la koy njëkkee te wax dëgg fa neex yàlla je pense bien que ne en tout cas je suis administrateur de crédit de passation ba mu fi ñëwee ba léegi fii la ma fekk te marché yi may déroulé yëpp dafa fekk ñu lancé ko ba desul lu dul approuvé te yëpp mosuma toog ak moom ñu wax si waxu marché te samay marché ñu ngi daw correctement kon kooku war nañu mën a indi ay seede ne du moom mooy foqati marché wala di xool lu mu am si marché wala di xool kan la seqanteel si marché euh, donc c' ça et coow li ba fi may waxee yow nii vendredi bi coow li di am je pense que tubaa la ñu fekk xoolal Touba tey kii ay standing ovation bu nu ñëw Touba dañu ne woon ne non non non c'est pas possible ñu def deuxième conduite 7 kilomètres mu ne bu ma kenn wax ne ma contrainte c'est ça le mérite de Cheikh bëggul dégg ay contrainte quel est le problème ñu ne ko woy conduite bi mu y a pas de problème j'ai appelé à l'usine il a directeur général CCS ne ko non avant màggal gi dama bëgg toute la production de tuyaux PVC DN 600 pour Touba ñu finaliser ko et sans condition delvis ne ko ah si dinaa poser une seule condition bu ñu couper courant bi mu ne ko d' accord ça je suis d' accord il a appelé son homologue ministre de l' énergie ne ko non il n' pas question ñu couper courant ci secteur bi ak parce que dañu soxla tiw yi avant màggal ñu promettre ko loolu bërki dem vendredi bi coow li am on était à Touba et on a vérifié que toute la conduite a été posé de Kër de Ngélémou à Kër Kabou sur 7 kilomètres mu nekk quelque chose d' inédit quelque chose d'inédit. Hmm? sur trois mois la waroon doon donc ça a été fait sur combien kii mooy directeur projet mën na si ñëwaat sax pour plus de clair waaw 19 jours donc kooku kooku bu ñu koy waxal ay waxu yi dafa rafetul ça c'est le vendredi le samedi vous avez vu comment lui-même il suit les actions sur le terrain c'est-à-dire que dafa di ministre bi nga xam ne non bu baax bi la li yi di wax bu baax bi moom bu baax bi la <laughs> bu baax bi la waxuñu ko nag pour sàmm suñu post wala pour non non non billahi wallahi taala def moom bu baax bi parce que transparence bi muy woote loolu lay doxal man je suis administrateur de crédit nekk personne responsable de marché ma suñu seq ma ak moom waxu marché vraiment euh, j'ai trop la parole xëy na yeneen yi ma si bëggoon a wax mën na mu ñu dellu si waat si mais lii ko li ko kii waxee léegi également on est disposé bu ñu jógee ci point de presse bi pour apporter d'autres contributions d'autres d'autres éléments sur sur sur sur l'ensemble de ces aspects-là ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kàddu yi jërë ngeen jëf euh,

maa ngi nuyu ñëpp donc man li ma ci bëggoon compléter rek euh, bariwul parce que euh, xam nga ñun ñooy def exposition des besoins la direction de l'exploitation des maintenances pour joxe ko euh, pour que ñu mën a def passation marché bi ñu wax a def te bi ñu koy def comme ni ko kii waxee au mois de février marché bi nga xam ne qu'on appelle parce que Dakar boo xoolee Sénégal dañoo am marché curage yoo xam ni pour Dakar la am marché curage yoo xam ni pour région bi la marché curage région yi 2021 2022 2023 lañ ko kii 2024 dafa jeex dañu woon lance beneen marché bu bees bu ñuy def ñun suñu DAO xam nga région bu mu nekk da am pàcc boo xam ne da nga koy jël ne tant de kilomètres ci nga fay ci ngay curé boo xoolee rek je prends uniquement l' exemple de la région de Diourbel Diourbel ñu ngi fa prévoir woon pour des canaux yi ñu xam ni dafa inférieur à mètre cinquante ñu def ci 7 kilomètres donc bu ñu xaymaa Diourbel xayma Touba xayma Saint-Louis xayma Kaolack Kaffrine euh, donc euh, maintenant Matam Thiès Louga dañu waxoon ni canal yi nga xam ne dafa inférieur à 1 mètre 50 il faut minimum ñu mën a jël ci 40 kilomètres pour que curage bi au moins mu mun laal mun laal région yëpp boobu ci benn rubrique la mais bi yeneen rubrique yeneen rubrique euh, dafa am ci curage bi am na canal yoo xam ne dafa supérieur à 1 mètre 50 am na canal yoo xam ne dafa inférieur à 600 mètres am na station de pompage yi am na bassin yi yooyu yëpp dañ koy def ci benn cadre de défi bi ñu ko defee ñun lañ ko envoyé ki ko envoyé def benn devis confidentiel parce que booy def marché booy def kii booy def euh, euh, DAO dossier d'appel d'offre da nga ko war a xamata lëkkale ak xaalis bi nga xam ne xamata moom la la jox donc mënoo def loo xam ne ëpp na ko ñu ko lëkkale yooyu le marché c'était 720 millions c'était 720 millions yooyu ñu on a prévu 40 kilomètres yoo xam ni pour réseau inférieur à 1 mètre 50 la canal bi ñu joxe ko bu ñu defee processus de passation de marché bi ba pare bi ñu choisir ñaari entreprise yi ñu commencé liggéey ñu dañu gis ni 40 kilomètres yooyu ñu joxoon dañ ko wàññi def ko 6 kilomètres te nee naa leen uniquement Diourbel 7 kilomètres la ce qui veut dire entreprise bi bu commencé woon Diourbel 6 kilomètres yi day jeex takk yeneen régions yi kenn du ko def te loolu li muy njëriñ mooy que dañuy obligé ne ko continuer parce que mënuñu taxaw mais à un coût de 18 000 francs alors que normalement le marché 2021 2022 le coût